ngeen ne dugal nañ ko a xam li maa ngi ñëw di leen jottali lim bi nga xamante ne am nañ ko tey ci mbas mii ñuy wax Covid 19 ci senegal ci bésu dibeer bi di fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril 2020 ministère de la santé et sociale jot na saytu yi. ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett yi nga xamante ne seet nañ ko fukk ak juróom-ñaar dellu nañ ak doomu jàngoro ji ci yooyu fukk ak juróom moom la ñuy wax cas contact mooy yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeykaay yi ñoo koy saytu ci yooyu tamit ñaari cas ñoom la ñuy wax transmission communataire maanaam mooy ñi nga xamante ne kenn xamul kan moo leen ko wàll ci ñi nga xamante feebaru nañ te ñu ngi tëdd hôpital juróom-ñeent ci ñoom bañ leen saytoo gis nañ ne amatuñu doomu jàngoro ji wër nañu ñi nga xam ne ñoo fa des seen wërgu yaram mu ngi am tan ci bésu tey bii dalee ko ba mbas mi Covid 19 duggee Sénégal ba léegi ñu ngi tollu ci ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaar ci ñi am doomu jàngoro ji ci yooyu ñaar téeméer ak ñaar fukk wër nañu. ñett génn nañ ci àddina benn delloo nañ ko réew mu mu jóge woon loolu moo tax tey ñu desee téeméer ak ñeent fukk ak ñett yi nga xamante ne ñu ngi leen di faj ci bërëbu fajukaay yi. ministère de la santé action sociale mu ngi gën a ñaax population yi askan wi ñu gën a topp dige yi tax feebar bi ñuy wax mbas mi Covid 19 du law ci biir Sénégal ci yooyu. ñu ngi leen di dolli di tere ñuy nuyoo ak loxo di raxas seen loxo yi ak saabu ak ndox di col mask ci diggante ñaari nit ñuy xàll lu toll ak benn meetar waaye tamit suñu demee bay bugg a tisooli wala ñuy sakkat ñu jël mouchoir te suñu paree ñu sànni ko ci mbalit mi bu ñu amul mouchoir ñu sëkkat ci seen diggante conc yi ñu ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si bitim réew da ngeen ngeen mën a jot moo leen vidéo